asalaamualeykum suñu mbokk internet yi asalaamualeykum suñu mbokk taalibe yi asalaamualeykum suñu mbokk jullit yi tey mën na noo wax inna lillahi wa inna ilayhi raajiun ci yàlla la jëmm jooju jege woon waaye tamit ci moom la delluwaat lal moo tax ji la wax ndax fële nga xame ni ca Brésil ak fi nga xam ne moom mooy Amérique latine ci weer bi nga xam ne suñu mbokk sénégalais ñu ngi fa di daan seen doole yàlla sunu boroom nag mi nga xam ne dara teewul am na kenn ci ñoom koo xam ni jël na ko waaye yàlla bi nga xamee ni moom moo sàkk doomu aadama yëpp wax kullu man lay faanin waaye tamit delluwaat wax kullu nafsin zaaxatul mawt tey nag dafa am xibaar bu tiis boo xamee ni dal na ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofee ci Brésil muy suñu benn mbokku taalibe joo xam ni ñu koy wax tamit Mori Fall Modou Fall boobu nag nekkoon ca Argentine demoon Brésil déposé woon wàllum kayit yàlla defoon feebar bi fekk ko fa mu mujj fa toog ngir li nga xam ne mooy doomi jàngoro joojee nga xam ne moo tax kenn demul kenn dikkul waaye nag yàlla mi nga xam ne dara teewoo ko moo Modou Fall moomu nag amoon na fa xeetu jàngoro boo xam dal na ko mi nga xam ni daana ko moom sax moo ko mujj faat muy problème asma asma boobu nga xam ne moom moo ko daloon nag ña fa nekk di ay mbokku taalibeem ñu lottoon lan lan ci moom doon koy dimbali moom tamit mu nekkoon njàmbaar joo xame ni daanaka tamit taxawoon na ay mbokkam fii ci réew mi waaye tamit daan leen dimbali bu baax a baax a baax yàlla suñu borom nag moom moo sàkkee noonu doomu aadama wax ni fii la war a faatoo mbaay tamit nii la war a faatoo waaye lu ci mën a am rek mboolem ku nekk Brésil ak mboolem ku nekk Argentine ñoo ngi leen di jox sunu njaal bu baax a baax fii nii wax ak yéen nag ma nga ca Brésil ak ci réew mi waaye tamit ginnaaw danoo bokk ñoom liggéey bi bokk ak ñoom metit ya ak naqar ya ñu leen koy bokk di leen ko jaalee bu baax a baax a baax a baax leen wax ne nag saa bu egsee ci réew mi rek kenn ku ne ci yéen dana ko mën a yëg waaye nag ngir jàllale fi nga xam ne moom mooy jàllukaayu xibaar yi moo waral doon tey ñu bëgg leen ko jën jàllale kon ñu doon war wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci yàlla la jóge woon waaye tamit ci yàlla lay delloowaat boppam bu baax a baax a baax a baax mu nekkoon xibaar bu tiis ko xam ne am nañ ko tey ci suba na woon